yërmande mi xewalam suturaam yàlla na ko borom bi tabaaraka wa la wàccee seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot yéen a ngi ànd ak seen doom seen doomu ndey seen mbokk Abdoulaye Ndiaye fii ci Mouslih TV émission bi ñu am chaque mardi ci waxtu wi ñu koy tuddee li ci réew mi li ci réew mi nag fa tabaarakallaahu nañ la ko waxee saa su nekk rek dañuy bëgg lépp lu ñuy wax rek mu doon loo xam ne dañ ciy jariñu yomb na yàlla yàlla na ko yàlla boole defal bi paase émission bi paase ñoo ngi nekkoon ci ndaw loolu mi nga xam ne moom mooy ba ci jooleeram lu rëy loolu mu def fa tabaarakallaahu def baakaar te tayu ko waaye nag naqarlu ko mettitlu ko ba fu mu yegg ak baakaar googu loolu ku ci nekk ci ñun képp kuy jullit war nga di wét saa su ne wala jamono ji ne di jooy ci say baakaar ndax dafa jaadu nag dafa jaadu lool nit di jooy ci bàkkaaram ndax ëllëg yowmal qiyaam bari nag kuy yenn ay loxoom yuuxu wacc wiccax lenn yóbbewu ko ko lu dul ay bàkkaaram kon yàlla nu yàlla jéggal sunuy bàkkaar te nag fa tabaarakallaahu ni ma ko tàmbalee ak yéen bii paase xam naa jaru ñu ciy jaaraat waaye fi ñu yemoon rek mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na jëkkër kër ba ba jël ki nga xamante ne moom mooy ba teg ko ci ay tànkam mbokk yi ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jël bi mu ko jël daal di koy teg ci kaw poojam ba dafa jékki-jékki rek ximali ko daal di tiit naan ko anzi rësi anzi rësi wàccee ma wàccee ma wàccee ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaxle ne ko Saalaba li ngay def mooy lan mu ne ko ndax da ngay jël bopp bu taq ripp ak baakaar di ko teg ci sa pooj yi sell yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi la moom ne ko yaa ba maa taqaaf lan ngay ragal lan ngay ragal yaa sàngale ba maa taqaaf mu ne ko aqaafu min azabillah maa ngi ragal rek yow yàlla yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla wàccee mbugal ci sama kaw ci xale bu am fukki at ak juróom mën nañu wax ni sax majeuragul waaye dafa teel a yëg responsabilité ci kaw suuf moo tax góor gi di wax ne ndeysaan xale laa xale laa ne na walaw kaan narabon mu ne xale laa xale laa ki nar a rek moo ko nar wax mu ne doon xale teewut am jom doon xale teewul a am jom ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey bu diine ji demee ba yegsi fii dañuy wax ne islaam tool la waaye li tax ku ci nekk ci nun mën coo jot ba diine ji naat yegsi fii dereetu saxaaba ñoo doon roosi lislaam ba mu yegsi fii amul kenn ku ci nekkoon paar kon diine lislaam tey bu yegsee fii ay ndaw ñoo ko xeex ay jeunes ñoo ko xeex ba yegsi fii tey kon kay dem ba doon màgget ci islaam bénéfice la waaye nag ndaw a ngi nii jooy yonent bi alayhi salaatu ne ko maa taxaafu mu ne ko axaafu min azabillah maa ngi ragal mbuugul yàlla wàcc wàcc sama kaw mu ne ko maatar tarju looy yaakaar yow Saalaba mu ne ko ar arju min rahmati rabbi maa ngi yaakaar rek fa tabaarakallaahu dajëg ngërmande borom bi tabaaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu ne ko noo ngi am yaakaar de di am njot ne li nga yaakaar sunu borom dina la ko defal defal na la ko muy yërmande yàlla saala ba dafay dafa ci saas dafa jékki-jékki rek tiit daal di jug toog yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko xoolaat moom saala ba waaye ci tiit bi mu tiit daal di toog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lan la mu ko xam nga li ma yëg sama yaram bi yow ki yàlla yónni mu ne ko lu yëg ci sama yaram bi mu ne ko dafa mel ni sama diggante sa yàpp ak sama man ak sama der bi damay sentir ni comme dañ may fees te deewaguma mu ne ko ndax loolu ngay sentir yow sànqale ba mu ne ko waaw mu ne ko kon dee moo la dikkal sànqale ba daal di tëdd tàllee ko ñaret di wax baatu laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah ba keroog sànqale ba di sedd ba keroog muy faatu ci xale bi am fukki at ak juróom yonente bi alayhi salaatu salaam keroog dafa bënn ay bëtam jooy ndax xale bi di ko génnee ci àddina lan moo tax mu faatu gis awra jullit te tayu ko moo tax xale bi di ci misère ba keroog ba keroog loolu di ko yóbbu àllaaxira mbokk yi kon nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla ci bépp côté yow mi nga xamante ni jàpp nga ni ndaw nga saa su ne war ngaa mën a pasar pasare sa bopp muy góor muy jigéen jamono ji ne war ngaa mën a fooye sa bopp wallaahi di nga ko rëccu ak ndaw a ngi nii de di naqar lu baakaar di ko mettitlu te dañuy wax ni ci islaam benn xool bi nga xam ne xool nga ko te teyoo ko islaam du la ko toppee kon mënoo ñoo jàpp ne kon saa la ba xool ba mu xool yàlla du ko toppee ndax lu mu tayut la waaye yow mi nga xam ne ni weesu nga weesu nga xool weesu nga kàddu waaye yaa ngi wéet di def na su dul noonu yonent bi alayhi salaatu wa salaam dénk ko na moo ibnu jabal ne ko ittaqillaa xaysumaa kunta ragalal yàlla fépp foo mën a toll waaye saaxla ba lii mooy li ko génnee ci àddina mooy baakaar bu mu def di ko naqarlu di ko misère ba keroog muy faatu waaye mbokk yi keroog xam nga lan moo ci mujj xew yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Omar ci yenn saxaaba yi defar nañ saaxla ba ba mu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullee na saaxla ba waaye gannaaw ba mu ko jullee fa tabaarakallaahu laa ilaha illallah keroog rob nañ saaxla ba ci bàmmeel waaye li ci jaaxal Omar bun Xattaab Omar bun Xattaab neen damaa gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dox di jël tànk ay baaramam di ko càpp ci kaw suuf mu ne ko ah man yow ki yàlla yónni man da jaaxle naa yow ak armeer yi ni muy yaatoo ak ni ngay dox di càpp sa tànk pour lan nga def lii mu ne ko yow Omar bun Xattaab robu xale bii de yàlla da cee yebal ay junniy junniy malaaka ñu ñëw gunge ci xale ñu ñëw gunge si xale bi ngir ngir ci robam mu ne nag laafu malaake yi dañoo fees dell ci biir armeer yi waaye bañ di dëgg ci laafu malaaka yi mooy waral mooy doxin mooy dox façon doxin bi mbokk yi kon kii ak ndaw la goo xamante ni dama ne royukaay la képp koo xamante ni ni sën nga jàpp ni danga war a dox sab ndaw yàlla nee na jox ma sab ndaw ma teel a sa mag képp koo gis mu nekk mag ñi koy yërëm boo xoolee paaseem wallahi sàggan na ci kon mbokk yi nañu ragal yàlla nañu defaraat suñuy jikko nañu defaraat suñuy comportement bu ñu demee fa tabaarakallaahu jamono gi ñu toll dama ne bu jigéen taxee na namu ma dara ma ne ko xaaroo dara jigéen dem ban sañ taxaw ne namu ma daraay góor ñëpp di ko dégg te muy kàddu gu rëy de te doon célibataire nga ne na namu ma daraay góor waa nit ki lu mu namm lu ne ju gëju si nit ki lu mu namm lu ne gëju si waaye yow mii xale bu góor nga toll ci toll sa diggi ndaw toll ci sa digg doole nga ne xale yu jigéen ñi wër nañ ma gel yi wër nañ ma man daal dama cee war a toll rek damay bëgge bisi ngi ñëw ci bis yi di nga ko rëccu fekk bàyyi woo ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg yowmal qiyaama safara dina xasaw lool di génne xet boo xamante ne ni nee na dafa yéem waa safara sax ba am ñuy jàmbat ne ko yàlla xet bu bon bii xet bu yéesee nii ñun de ba ñu nekkee fii ba tey mosuñoo xencu xet bu bonee nii yàlla na leen awraay njaalal ko ci lay laq nii moo waral tey muy xasaw safara indi xet bi nga xam ne ne bon na jéggi na dayu waaye beneen bi neen ràññaane na ca kaw asamaan gis ab jigéen malaaka ya ngi ko yeew ba mu dëgër di fopp ab sooy sooy mooy weñ wu tàng jër neen na mu koy ñu koy xambee ci biir safar di ko génne di ko dugal ci pëyu xale jigéen boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ma laaj Jibril ne ko kii liggéey mbugale métti na de kii lu lu muy def nii mu ne ko kii mooy nekkoon jigéen di nga xam ne téewu boppam ci góor ñu ko woyofoon sër la mbokk yi kon nañu ci bàyyi xel bu baax te ñu ragal yàlla ragal yàlla suñu diggante ak suñu borom ragal yàlla suñu diggante ak suñuy morom kon saaxle ba lii moo nekkoon dundam li tax ma ne dundam fa tabaarakallaahu ku néewoon la ay at waaye ku guddoon fan la mooy nit ki dina def loo xamante ni ba keroog àdduna yu tukki kenn du ko fàtte yonent alayhi salaatu wasalaam ba ko yàlla di yónni ci septième siècle la lii moo nga xewoon ci septième siècle waaye ba tey ñoo ngi koy waxtaanee fexe ragal yàlla ci lu nëbb ak ci lu feeñ fi may jeexale dafa amoon benn seen benn ndaw bi ñu wax tuddee mu munuy ba moom it fa tabaarakallaahu saxaabiyaat la nekkoon jigéen nekkoon xale bu ndaw ndeysaan moom it tëdd ci lalu sukuraat di jooy jooy metti yaay ji tiim ko naan ko doom ndax danga ragal dee moo tax ngay jooy mu ne ko wallaahi yaay ragaluma dee mu ne ko lenn laay jooy sama yaram bi lu mu màndiwul ci jaamu yàlla te nar a ràpp ci biir bàmmeel loolu laay jooy laa ilaha illa kon doon ndaw teew laa baax doon ndaw taxul nga dafa war a tax nga teel a xam say responsabilité ci kaw suuf kon nañu ci jëm a bàyyi xel bu baax tabaarakallahu loolu moo nekkoon dund saax la ba mbokk yi ñu jëm cee jàngat bu baax man damay wax ne émission amul neex na macha allah waaye lan nga ci jàngate waaye ba nga pare lan nga ci jëfe saxaaba yi nag fi ñu moom mooy benn aaya duñu ko moqal ba romb ko lu dul ni dañ koo jëfe waaye tey ñun nag dañuy jàng rek jàngum guma di romb rek te duñ ci jëfe dara topp yàlla gën a jafe yàlla na ko yàlla yombalal mooy yàlla gën a yomb yàlla na ko yàlla jafeel mbokk yi lépp lu ci jub rek ci yàlla la lépp lu ci dëng rek sunu gàtt alliwe la wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu